Mbaye Dia sàcc naa parfum sàcc naa parfum de Bachirou lu neex lu ne sagam bi la ne ay no ay nova yi neex lay parfum laal leen ay waay maa ngi publicité waa nova de dañu war fay publicité ma ñam si Babacar waaw nova la nova Bachirou waa ndeysaan ñu dem waa Nova dinañ fay publicité bi dama sàcc Nova bi si si ba Basiru waa ñaari xale yi ay eh, combat bi na gaaw nag dafa mel ne dañoo léewatoo rek jàppante ne joxe ma turu booy bi joxe ma turu booy bi joxe ma turu xale bu Songane Gueye ak Ceydo. moo dëkk Gunaas waa Ceydo moo dëkk Gunaas. Siteu bu songaan ngeen ñu woon kanam ak cey do ba nee naa Bachirou ay ay Nova ay waa Nova dañ fay publicité bi ma def ah bàyyi naa lambu jari cey do wër na ko egg na ko ak Siteu bu songaan ngeen Siteu cey do cey do Siteu ay cey do waa daan ko maam ji dafa gaañu barki démb la maam ji gaañu booy bi cey do ndeysaan maam ja maam ji xaritam la dafa génn àdduna maam ji daa génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm ko àjjana ay cey de ay waay bul jooy booy bul jooy oh siisu na ay waay eh, kii ñaaw ni muy jooyee xoola cey de ni muy jooyee waaye su mu leen lii <laughs> waaye kii ñaaw ni muy jooyee waay ndeysaan maam ji dafa génn àdduna maam ji génn àdduna